asalaamaaleykum mbokk internautes yi nga xamante ni ñoo safoo di seetaan seen euh, chaîne bu mag bi di Dakar Matin am mbégte euh, janowaat ci euh, plateau décryptant l'actu ganu tey bi nag mën naa ni kenn dootu ko présenté ndax borom xam-xam bu kenn dootul natable la loolu ci ay position mu député ci treizième législature bi ganu tey bi nag ñu koy wax Théodore Monteil monsieur Monteil maa nuyu di la bàyyi nga ñoon teg mbokk internautes yi maa lay nuyu Adja di nuyu yëpp bépp internetu Dakar Matin di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp.

waaw loolu euh, député ñett la xam nga sénégalais yi euh, la plupart du temps ci jamono yi ñu toll euh, fonctionnement assemblée nationale ak ni seen député yi di taxawee daf leen di jaaxal ba nga xam ne dañ dañ dem ba commencé di wax waxi profil député mais député amul profil député sénégalais la bu engagé wu bugg a dem taxawal askanam mu ne ne munoo ne député bi dafa war a am brevet wala dafa war a am baccalauréat wala dafa war a am master parce que sénégalais yëpp yemuñ. ñii dem nañ école ñii demuñ école mais taxawaay biñ mun a taxawal euh, askan wi que nga dem école jàng wala nga ñàkk dem école béykat beeg nappkat beeg sàmmkat bi ñëpp a ci war a yem ki nga xam ne am na am na kàttanu taxawal askanam war na mun a nekk député ñett nag lañ ko laaj benn bi mooy muy tëgg ay loi mhm. loi yi xam nga mun na jóge ci gouvernement comme mun na jóge ci député dinaa ci dellusi

ñetteel bi contrôle des politiques publiques dafa laaj xam-xam ci finance ak euh, finance publique donc l'ol, ñett yoy pour nga def ko député bi dafa wara am xam-xam bi est-ce que député yépp mën nañu tënk xam-xam yooyu yépp ci benn bopp non gëmuma ko mhm. moo tax bu bëggee assemblée nationale fonctionner correctement dafa war a am citoyen yu engagé wu pour ñëw nekk député ci seen gannaaw ñu teg fa ñi ñuy wax ay assistant parlementaire ñu leen di saytul yenn yi pour mun leen a gunge ci liggéey bi parce que gouvernement bi bu ñuy ñëw assemblée nationale ministre bi dafay ànd ak gàngooram dafay ànd ak ay techniciens li ministre bi di wax ay technicien ñoo ko tëgg jox ko ko moom mu wax ko donc c'est pas parce que wax na ko que xam-xam bi mu génnee yépp moom moo ko jur walla moom moo ko saytu ay techniciens yu bëri lay am ci domaine yu bëri loolu nag bu ñu bëggee suñ assemblée fonctionner réellement Faut ñu dimbale assemblée nationale ñu jox leen assistant parlementaire yi ci war ñu leen di saytul pour que député yi mun a def seen seen liggéey ci anam yi mu a alors da nga wax ni que pour nekk li nga xamante ne moom moo di député soxlawul nga am xam-xam ci wàllum jàng maanaam mun nga bañ am brevet mën nga am bañ am bac mais ci sa waxtaan aussi da nga ni koo xamante ni dafay bokk suñuy tëggalee waa waroon na am tuuti ci lu mu xam ci wàllum droit wala ci wàllum finance est-ce que tey euh, jotul ñu xoolaat ñi nga xamante ni dañ leen di yónni euh, fële ci pencum ndaw réew mi boole ci ci li nga xamante ni moom moo di jàng as tuut. waaw moom laay wax jàng as tuut boobu baax Euh, man damay wax toujours Sénégal toll na foo xam ne jàng bi dafa obligatoire en tout cas ba niveau bac que nga am ko wala nga ñak ko am mais dafa war obligatoire donc diganté 5 ans ba japp 16 ans xalé yi dañ wara dem école. Mm-hmm. ñu tagat leen def base bi jang bi taxul nga am ay spécialité fay structurer sa xam-xam. di mm-hmm. structurer sa pensée day tax en face d'un problème nga mëna tok né ne ah lii problème la bu ma ko bëgg résoudre fi, ak fi ak fi la wara jaar pour am ci solution mm-hmm. est-ce que nak am nga euh, am nga euh, xam-xam bu pointu bi tax nga mën ko résoudre pas forcément mm-hmm. moo tax ma ne député bi war mën na am base mais dañ ko war a dooleel mm-hmm. ki koy dooleel nak moy assistant parlementaire parce que ben nit mënul am xam ci droit xam ci finance xam ci technique xam ci administration xam ci loi donc l'olu ay nit ñu bëri ñoo ko ñoo war ci gannaawam di jangat affaire yi bu fekkee député bi dafa am par exemple euh, ben idée xam nga citoyen engagé mun na xol mu gis par exemple suñ littoral bi ñu ngi koy attaqué. Mhm. donc soxla wul nga dem école pour xam ko. donc bu démé ci assistant parlementaire bi ne ko ah man de bëggoon ñu xol naka lañ mëna def pour def ben proposition de loi pour organiser occupation littorale bi. Mhm. donc assistant parlementaire bi nga xamné xam xama match na ci droit commencé ci liguey mais tamit dafa laaj ay aménagiste dafa laaj ay géographe etc. donc xam-xam yu bëri wara dajé pour def liguey bi mm-hmm. suñ assemblée nationale nak loolu le manqué donc il faut pas que ñu juum pour naan député bi dafa war am profil député bi li ko laaj moy engagement citoyen actif loolu bu ko amee rek war na mëna pas député mm-hmm. légui nak c'est la république l'état moo def de telle sorte que si nous bëggee assemblée fonctionner ñu une administration bu baax assemblée nationale parce que l'ol de députés député yi du ay nit élire ay nit yu nekk fofu la nga xam bép député na ñëw poser leen question ñu liggéeyal ko ci lim bëgg euh, assemblée nationale. alors ñu gis la campagne qui di euh, démarrer le président de la république qui na artu nous ñoo que langue politique bi campagne bi démarré bésu tey bi di cinquième jour ñu avons quelques actes de violence sur la de tout bord récemment on a attaqué euh, li nga di cortège de parti Pastef Ousmane Sonko est-ce que si yéen seen jamono xamoon ngeen une euh, euh, forme de campagne lii moo mos Sénégal Sénégal chaque fois bu ñuy une campagne électorale le Sénégalais est passionné dañuy dem ak passion léeg-léeg nag mu am ñu rax ci biir pour def leneen. Mhm. donc moo tax président de la république effectivement daal di artu njiit yi pour que ñoom ñu wax ak ñi ñuy andal, mhm. parce que toujours foofu lay jógee policiers yi ci seen bopp du ñu réeroo mbir mu saa yu ñu demee bu ñu paree bi dañuy retrouver wu waxtaan. Mhm. donc il faut que xale yi def ndànk xam ne que euh, à part peut-être tey leader bi gaañu muy Malick Gakou ma koy massawu bu baax. généralement les leaders ne sont pas touchés ñi ànd ak ñoom ñooy xeex ci seen biir ñooy blessé ñooy léeg-léeg sax ñàkk bakken am ci bakken wu rot am ci mhm. donc il faut que ñuy delluwaat xelu xale yi mais nag kooku responsabilité leader yi la c'est-à-dire booy jóg di dem campagne chaque jour da nga war a briefer ñi ngay àndal nga wax leen que niñ fi jógee tey noonu laa bëgg ñu delloo si fi man bi may campagne en 2017 no man behind moo nekkoon suñu slogan bu ñuy départ du ñu bàyyi kenn gannaaw donc si nous savons que nous sommes en train de se faire, nous si nous lañ nous Nous en ñu nous départ mhm. donc c'est dafa important toujours dañu devons, chaque jour nous ngeen di jóg waxtaan ak nit ñi nous amul pour waxtaan ak askan wi parce que xuloo ak fitna dafay démocratie Sénégal La démocratie Sénégal ñu bëri démocratie ci donc dañ ko Donc, nous mu Nous fi mu nekk de plutôt que ñu koy gàllankoor ndax ay violence vraiment euh, président de la république am raison pour oote ci ci ci jàmm ñu dem ci campagne bi ci jàmm am leader politique yu bëri yu ciy oote mais oote bi doyul il faut que ñu jëfee ko mhm. jëfee ko mooy ñuy waxtaan ak suñuy ndaw ñuy waxtaan ak suñuy àndandoo di waxtaan ak suñuy jegeñaayoo pour que bu ñu dem ci terrain bi ñu bañ répondre à la provocation bu ñu jóg di dem ci terrain bi bu ñu ay armes parce que nit ki gànnaayu moy dem moy mooy xalaat déjà ne fitna fay am. te arme bu génnee rek day day chauffer esprit donc nit ñi euh, da nga nit ñi yemuñu di nga gis ñoo xam que bu ñu rek. Euh, affaire de leen di excité dañuy bëgg xéer par force. Mm-hmm. donc il faut que ñu ñu xol lool bu baax et puis bu fekkee a dafa am ci biir euh, kuréelu politique ño xam dañuy jóg pour def provocation il faut les écarter mm-hmm. parce que ñooñ duñ lay yokal dañ lay mm-hmm. donc vraiment ce que nous avons gis té toujours ci wax lay tambalé parce que wax moy indi jëf da ngay gis les gens utilisent des mots très violents après mu une violence physique nous ñu apaiser parce que li ñu bëgg def waxtaan ak citoyens yi la ñu yoni nga nekk seen ndaw ci assemblée nationale donc coup violent vraiment kenn du ko yónni ci assemblée nationale. Mm-hmm. ne ñu tey ànd ak dal waxtaan ak askan wi ku yàlla ne yow yaay nekk majoritaire ci assemblée ci pencum ndawi réew mi nga nekk majoritaire en tout cas li ñu soxal ñun ñëpp. Mm-hmm. mooy que Sénégal jóge fi mu nekk tey daal di gën a màgg. justement askan bi soxla ñoo xamante nous ñoom lay yónni fële ci pencum ndaw réew mi alors quel genre de député avons-nous besoin bu ñu déggee tamit ñenn ci euh, mën naa ni kujje ki ñu ngi xam ne ni tey bu ñu yàlla bu leen yàlla mayee li nga xamante ni moom cette majorité euh, les li nga xamante gouvernement doit da koy soxla coup ko bëgg a tëgg ñoom dañ ci teg seen loxo est-ce qu'on a besoin de ça par rapport pour un euh, député bo xamante certes da ngay euh, représenter li nga ce contre-pouvoir mais est-ce que c'est forcé en tant que député yow euh, nga une opposition nga président président wala gouvernement am loi yu bëgg a tëgg yow nga bëgg ci texte tank xam suñu constitution daf la souveraineté appartient au peuple Manam doole ji askan wé ko mo daf koy exercer sous plusieurs formes mm-hmm donc askan wi day fal président de la république jox ko ben parti doole bi fal assemblée nationale jox ko beneen parti doole bi président de la république moom la ñuy jox suñu euh, suñu alal Mom la ñuy jox yenn sañ-sañ yi muy fal di folli di tek fi yëkkati jëlé feulé ñu fal pencu ndaw réew mi pour ne saytulen. saytu li président de la république di def. waxuñ leen bloqué wala jàllale leen dañ leen leen saytu leen ki la yónni ne la saytul yow ya ko wara a laaj lan nga bugu ma xool ak ban taxaway nga bugu ma taxawé mm-hmm. motam député triptyque la je représente je légifère je contrôle pour nga mëna représenter nit fokk ngay dem ci mom di waxtaan ak mom fal na la wayé néwula démal demal at bul delloosi faut ngay dellu si di wax ak mom ki nga xam euh, euh dañ la yoni da nga war di dellu si ah li nga yoni won de def ak li est-ce que loolu nga soxla won mm-hmm. maintenant suñu constitution dafa xuus mu né pour nga nek député il faut que mu am couleur courel bu la investir mais constitution mosul wax ben yoon né que diw député courel ba ko investir la daf né le représentant du peuple à l'Assemblée nationale et appelé député de la République du Sénégal. Mhm. Donc, on représente les Sénégalais. Donc, dès lors que investir il fallait la falee député rek nekk mosoo nek député parti wala coalition pour la investir pour ga la investir il faut investir pour nga dem représenter sénégalais comme le président Bassirou Diomaye Faye tey nekké président sénégalais yépp malgré le fait que coalition Diomaye président ñoo ko investiroon dafay tëddee njaaxanaay parce que du président euh, coalition Belé, du président parti Belé, président de la République du Sénégal mhm. fii c'est l'Assemblée nationale du Sénégal député Yafay Tok, député Sénégal République, dañ war a bu président de la République indee loo xam ne dafa méngoog li askan wi ñu jàllale ko

notre euh, opposition politique au sein de l'hémicycle te loolu amul lu ko gën a bon doo nekkati quelqu'un de de de de d'objectif doo xoolati bi de façon objective da nga par parlo ci par parlo parparloo baaxul. Mhm. kujje gi mu ngi yem ci terrain politique bi bu élection yi jeexee kujje amatul Sénégal la ñuy liggéeyal liggéeyaloo sa parti liggéeyaloo sa coalition li Sénégal bëgg nga war a xool di ko doxalee noonu. Mhm. loolu ci lay oo les futurs députés assemblée nationale nous ñu génn assemblée équilibrée. équilibré la woon ci bi bu yenn modification yi la meilleure législature du Sénégal parce que dafa équilibré ba nga xam de dañu obligé de discuter boo demee au Bundestag allemand 733 hmm. députés la ñi ñi gouverner ñu ngi am 418 ñi opposé wu am 315 Té ci 418 yooyu di di di di gouverner SPD bi nga xamné ñom ñoo fal chancelier bi. Mhm. ils ne sont même pas majoritaires. donc waxtaan moy tax ñu mëna a ay loi dëkk boko ko yoré yore da ko ngay dindi euh, subjectivité c'est-à-dire bu ko jegi amee nag dinañ ujje bu baax xeex ci terrain bi pour jël position yi mais bu ñu ba jël position yi luñ suñu kuréel politique Sénégal lañ wara liggéeyal te loolu rek mo wara nekk suñu objectif ci biir assemblée nationale. vous avez parlé quelque chose d'assez important muy équilibre est-ce que ak li nga vous moom lañu jotoon nemmeeku bu ñu jógee euh, ci euh, élection présidentielle ba avez nii si tour des meetings ñu nemmeeku est-ce que vous croyez sincèrement à ce que loolu ñu woowee équilibre mën am. bon ci cinq premiers jours yi li ñu en tout cas ñu ngi euh, quatre grandes coalitions di di émerger. Euh, peut-être que si on veut être rationnel il wax que le la majorité électorale bi di mais nak les foules Euh, ne peuvent pas. les foules, ce n'est pas vraiment un, un élément de, de, sondage. Donc on doit être un peu plus pointu parce que foules, quelquefois, vous voyez des gens qui ont des gens qui font des meeting, qui ont des caravanes, des bouger Parce que les meetings, ils déplacent les gens, mais nit ñooñ duñ la voter forcément te xamoo ndax sax am nañ carte wala inscrire inscrire nañ ci fichier bi donc euh, nañ def attention ci foule yi mun na nekk euh, mun aussi une réalité donc on ne peut pas savoir mhm. mais daal euh, du du du du du baromètre boo xam ne mun na tax tey ñu ne majorité bi fii la jëm wala fële la jëm mhm. donc bu ñu demee ci deuxième semaine campagne bi dinañ gën a évaluer fan la tendance yi vote yi di dem bu boobaa dinañ xam naka la assemblée bi di eh, di basculer est-ce que day équilibré wala dañu am majorité écrasante d'un côté ou de l'autre euh, il faut que ñu xaar encore 10 jours pour mun am euh, vraiment euh, les éléments de mesure alors euh, ki nga xamante mo fi nekkoon njiitu réew mi di président Macky Sall ñu nemmeeku ni bokk na ci li nga xamante moom moo di jongante bi à travers takku wàllu moom mooy euh, intercoalition seen diggante ak euh, ñi nga xamante ñoom ñoo di Sopi wala PDS on peut le dire ainsi est-ce que on peut croire ci li nga xamante ni moom moo di le président Macky Sall mi ne woon troisième mandat tax ko jóg bu fekkee gis nañ ko mu bokk ci jongante pour bëgg a représenter askan bi ci pencum ndaw réew mi sachant que il a fait douze ans au pouvoir man vraiment euh, d'habitude du may wax ci organisation politique mais takku walu dama len xaw a parce que nit ko xamné sénégalais en majorité dañ ko ne buggatuma la nga jël ko def ko tête de liste yaa ngi gàllankoor sa bop au départ dama défé né poson la ci coalition bobu xawma nak lan mo len motiver pour ñu def ko wala mom lan moko motiver mais en tout cas je pense que coalition bobu du am résultat yu baax Do am résultat yu parce que voilà non seulement du am euh, parce que euh, six mois là, six mois euh, on va être peut-être à huit neuf mois mais ni Sénégalais yi doon gisee démb barki démb noonu koy gisee suba dara changé wu fi dara soppeeku wu fi ba li tax ñu donc nga Sénégalais de façon mosul am y a jamais eu dans l'histoire politique du Sénégal un président sortant Boudemoul, deuxième tour Abdou Diouf deuxième tour euh, Ablaye Wade demne deuxième tour Macky Sall rek de battre au premier tour donc ça veut dire que sénégalais yi wax nañ ko waaw parce que il faut poser une question sénégalais yi sénégalais tant que ko que bu l'air nañ Si nag bu pour nekk tête de liste non seulement il faut rompre une tradition parce que généralement, un président sortant, il doit être en retrait pour baigner gêner son son son son son remplaçant Il mun a am les coups de franche mun a liggéey te loolu la wax bi mu naan dem Maroc c'est la justifié pour ne que le toog Sénégal day dem Maroc pour qu'il a les coups de franche au président Bassirou Diomaye Faye tey bu dellu see six mois après pour ne soit nekk tête de liste non seulement il s'est euh, dafa dafa dafa dafa dafa jéggi kàddoom parce que daf ne de de damay sori pour bañ ko gêner dellu si mais deuxièmement fay galancor sa coalition parce que sanction biñ ko sanctionné à l'élection présidentielle mom lañ koy sanctionné wat ci élection yi ñu jëm et lool moy dal ci ko coalition et beaucoup tamit ne comprennent pas euh, wa walu ñi nga xamanteni présidentielle ils avaient soutenu qu'il nga le la coalition et n'a pas fait de même si euh, li nga xamante ni moment euh, élection euh, législative ils se demandent qu'est-ce qu'il y a eu entre temps le changement bi am je pense que ça fait partie aussi de l'inconstance de certains acteurs politiques y ay acteurs politiques qui ils ont tendance à naviguer mm-hmm. loolu nag li koy indi mooy waxtaan bu bëri waxtaan bu bëri politique engagement politique dafa laaj nga am intégrité dafa laaj nga am euh, conviction loolu dafa commencé sooxee Sénégal acteurs politiques yu bëri amatuñ yenn valeurs yi donc dañuy waxtaan fi waxtaan feulé donc ça veut dire que ils sont euh, dañu nek di di di jiital sen intérêt bop ak sen intérêt partisan au lieu de mettre en avant le Sénégal mm-hmm. lool nag bo ci nekkee tay da ngay eh, ànd ak Pastef suba nga ànd ak eh, PDS suba nga ànd ganaw suba nga ànd ak APR et cetera et cetera mooy indi <laughs> très souvent ligay gis eh, des ñi ñuy wax de de grands barons en politique ñuy dem léeg-léeg ñu yéeg ci kaw montagne bi lekk fa ñax léeg-léeg ñu wàcc dans la plaine lekk fa ñax et cetera ni ñuy wax transhumance c'est vraiment une affaire d'animal transhumant c'est un acquis ah, transhumé mm-hmm. donc nous euh, devons corriger le dañ Sénégal et changement perpétuel yi nga une idéologie mm-hmm. une orientation je dis très souvent que de plus en plus Lola laa gëmoon ah, élection présidentielle qu'il va se dessiner trois à quatre grands courants qui ont ne driver la politique sénégalaise ba nga les 300 et quelques partis ñu am même bu ñu continuer exister dañuy nekk ci ay courant ñu xam ne lii mooy courant majeur yi ñu ciy dem ci ñu des ci c'est-à-dire ñi nga xam dañ ne ñoom c'est des gens de la gauche socialistes gauche dañuy rester dans la gauche mun nga nekk nag ça peut être plusieurs partis avec des orientations différentes mais mu nekk la gauche Nous nga ils sont de la droite nous mu plusieurs types de droite libérale nous sommes dans la droite nous sommes dans au centre nous sommes des nationalistes souverainistes etc. mais nous avons décidé, nous a dit nit ñi di ci je suis de la gauche suba ñu dans la droite ce n'est pas bon c'est un mauvais message pour sani nous suñu dans ak suñu la droite. Euh, tant que corrigé wuñ euh, dañuy nekk des politiciens versatiles nga xam ne dañuy génn ci mbedd bi naan nit ñi def leen li def leen lële boo demee sa biir kër ne leen def leen lële def leen lële donc da ngay nekk une double personnalité li ngay wax say doom bul fen bul saaga bul xaste bul wor boo génnee ci mbedd bi ngay def exactement le contraire xas saaga wor fen donc loolu c'est c'est voilà

bien sûr que dina sommes dara surtout que dañu def ci sur certains départements dañu d'accord ci intercoalition donc nous na jur dara té euh, dañuy souhaiter sax mu jur dara comme nous ma la il vaut mieux ñu am une assemblée équilibrée avec des députés conscients plutôt qu'un grand déséquilibre parce que encore une fois il ne faut pas que les Sénégalais pensent que pour que le président Bassirou Diomaye Faye puisse diriger il lui faut absolument une assemblée majoritaire écrasante de son côté parce que de toute façon, l'Assemblée nationale n'a pas intérêt à bloquer l'action du gouvernement. Parce que si nous bloquer l'action du gouvernement, la Constitution sénégale met le président sans sañ yoo ne diriger sans l'Assemblée nationale. Ah, donc vous interpellé par rapport à la constitution du Sénégal ndax euh, jàpp nga ni tout le temps euh, interféré interférer wu su fekkee ni euh, nationale maanaam peut nous réew mi su fekkee ne njiitu dafa dugal loi bu mel la loi de finances, par exemple mu loi de finance ñu bañ ko La constitution daf comme may mu reconduire crédit yu passé donc quand vous nga la loi de finance wala nga ñàkk ko vous daf koy dina ko jàllale daf koy constitution may parce que dëkk bi foog mu dox donc il vaut bien ñu am une assemblée consciente yo xamné dañ nan ah président li bëggu nañ nga soppi ko pour que ñu mëna donc exécutif ak euh, euh, législatif dañ war di waxtaan di dégo bu féké né député bi warul wax né li duma ko def man par exemple gis na ay député yo xamné aujourd'hui ñu ngi occupé ay anciens députés yo xamné ñu ngi ci gouvernement actuel bi ñu ngi occupé ay direction générale yo xamné dañ ko bañoon voter voté bañ koy créer assemblée nationale mm-hmm. donc dune rek parce que euh, diw bokk baak mom kuréelu politique lu mu wax dama koy bañ maintenant euh, mun nañ indi ben loi mu am yo xamné peut-être dafa la ciopité mhm. nga ne euh, nga wala nga xol exposé des motifs bi leerul ci sa bop loolu moy tax ñu ñu ñu tek liñuy wax le ministre chargé des relations avec les institutions koku la assemblée di wax ah mu war waxal président ne lii ak lii yaakaar nañ ni war nañ ko soppi ci loi bi mais président bu indee loi benn réforme moom lañ fal parce que loolu dañ ko war a xoolaat bu baax moom moom la sénégalais yi tàmm tànn moom lañ ne yow ci juróomi at yi ñuy jëm yow lañ bugg nga yore doole ji donc kooku mooy def ay réforme mooy dugal ay loi moo am sañ-sañ bi député yi tamit am nañ sañ-sañu dugal ay loi bu fekkee ne président dafa dougal loi bo xam neexu leen ñoom it mun nañ dougal benen proposition de loi mais li wor ba wor moy que président chaque jéego bu mu tek ci lima xalat xalaat bu mu tek pour que Sénégal jëm kanam la parce que dafa wax bu bu ngeen ma falé li ak li ak li dina ko def pour que Sénégal jëm kanam ñu fal ko mu pour ma mëna a liggéey war naa teg dispositif bi dispositif boobu soit décret moo koy euh, tëgg soit loi moo koy vous donc bu fekkee décret la soxlawul assemblée nationale bu fekkee loi la foog mu ñëw assemblée nationale expliquer leen nak, défendre loi bi wax leen lii ak lii laa ci bëgg su ngeen ci d'accord ngeen voteel ma pour mu mun a def liggéey bi bu fekkee ne nit ñi dañu jóg pour défendre Sénégal soit dañ d'accord totalement soit ñu ne war nañ ci soppi lii loolu mooy wax amendement amendement nag gouvernement bi mun na ko d'accord wala mu dàq ko bu fekkee ne waxtaan dafa am diggante ñaari institution yi bu amendement duggee duñ ko dàq toujours wala ñu d'accord ko toujours toujours chaque fois dinañ wax ah amendement bi nga dugal dina gàllankoor lii ak li ak lii wala amendement bi nga dugal baax na loolu mooy indi waxtaan bu jur lu baax pour réew mi mais bu fekkee ne yow da nga ne man lu président indi dama koy dàq parce que bokkuma ak moom kuréel foofu day indi blocage te bu indee blocage mécanisme yi président am pour teggi blocage de dafa bëri na jël les pouvoirs spéciaux bu les pouvoirs spéciaux bu boba des gouverner seul soxlawul ken mhm. des gouverner seul mun na jël ay li ñuy wax euh, nu ñu koy waxatee amna ben terme juridique mang koy faté Il bëri na ay mécanismes yu constitution bi prévoit pour que en cas de blocage le président de la République puisse gouverner seul mhm. rafetul rafetul mais beaucoup ko imposer il est obligé de le faire. alors ñàkkul ñu aussi tamit euh, nemmeeku nga ay euh, li nga xamantene ay faiblesse institutionnelle mu laaj ay chopité yalla don don su fekkoon euh, vous aviez l'occasion ñu initier ay chopité bëri na bëri na suñu constitution bi war nañ ko saytuwaat bu baax suñu code électoral war nañ ko saytuwaat bu baax. dina ci ñew règlement intérieur assemblée nationale war nañ ko saytuwaat bu baax. gis nga ni par exemple élection yi am de teg de côté complètement code électoral parce que le code électoral wax ci parrainage c'est obligatoire parce que je sais encore une fois que conseil constitutionnel dañu dem au-delà de leurs prérogatives, du ñoom ñooy war que le euh, que parrainage warul am ci élection ah, parce que conseil constitutionnel du def loi lois interpréter loi du loi donc nous nous nañ prononcé wu ci délai yi mais waruñ prononcé wu ci contenu texte bi mënuñ ko changer donc loolu ay faiblesse la mise en corrélation entre suñ constitution et une code électoral dañ ci war très rapidement mais pour ñu am code électoral bu baax il faut que ñu bàyyi di ko jox politiciens yi ñu koy bind chaque fois bu amee jongante politique généralement dañuy def révision du code nous avons dialogue le dialogue politique mais le mais dialogue politique généralement ça tourne autour de la révision du code. Mm-hmm. révision code Bobu toujours gars yi pour régler ses propre problème bu nous historiquement révision code depuis 1994 pour régler ay problèmes personnels et chaque fois les problèmes des problème yooyu des jur et blocages def fait une révision code pour empêcher un ay candidats ñu ñu nekk ñu nekk ñu participer et cetera def nañ fi révision code pour dugal parrainage bi mu jur blocage yi et cetera mm-hmm. Mm-hmm. donc il faut que politiciens yi bien sûr dañu war a bokk ci waxtaan wi mm-hmm. mais bu ñu waxtaanee ba pare dañu war a jox jébbal euh, résultat waxtaan bi dañ ko war a jébbal ay spécialistes de la légistique ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc te ñuy bindee loi ñu bind ko parce que il faut toujours une écriture transversale Il ci constitution bi constitution, ci code électoral bi mhm. dem ci règlement intérieur assemblée nationale C'est moy tax nga mettre len en corrélation aujourd'hui dañu changer une conscience, changer ko changer ko changer ko ba ci bir y bi fay am ay contradiction mhm. Bo un ci règlement intérieur bi fay jox interférence bu l'exécutif ci exécutif bi ci fonctionnement assemblée nationale yoy dañ ko changer mhm. mais ce yep nak li ci gëna important le mode de désignation des députés tant que nous continuons de désigner désigner députés de façon euh, suñu scrutin mixte nous ñu une partie proportionnelle et une partie majoritaire nous avons toujours problème euh, pour nous des députés vraiment représentatifs des Sénégalais Nous avons euh, des élections uninominales basées sur des euh, des localités c'est-à-dire nous diviser Sénégal en plusieurs localités ñu par exemple Dakar sept députés la am député bu nekk day représenter ben localité ben Gokh. bu de nous un scrutin majoritaire uninominal à deux tours donc ça voudra dire que que fay il représente vraiment la circonscription euh, bu nous avons une petite dose de proportionnalité parce que nous nous permettre raw garder bi am tay nga xamné da ngay jiitoo benn voix dal di gàddu ñetti député wala 5 députés wala juroom ñaari députés. donc tant que defuñ lolu duñ am une une assemblée nationale vraiment représentative des populations et je pense que comme dañu jëm ci territorialisation des politiques publiques il est important que les députés... Euh, circonscription il est di fal ràññee leen xam ne kii moo nationale. alors euh, je sais pas si vous avez suivi nga le cas bougan Gueye Dany nga xamante dem aussi dañ ko libéré euh, mais aussi daan un mois avec sursis et amende légui ndax mën nañ espérer ni que justice euh, mi ngi que justice à double vitesse ban jàngat nga ci cette justice. bon moi je pense que. Euh il faut d'abord nous Sénégal nous devons de plus en plus arrêter de judiciariser les actes politiques euh, mais il faut aussi que les acteurs politiques évitent la provocation xam nga euh, euh, kilifa ci politique da nga euh, exemplaire da nga war a nekk koo lay comme repère xale yi dañ war a yow ñu ah, doxalinam ci politique rafet na rafet bo xamné mën nañ jël référence ci mhm. moi je pense que des deux côtés il y a eu euh, des excès euh, je pense que ci contexte bi ñu jël un grand cortège comme ça pour ne da ngay dem à ci je pense que dimbalé askan bi lu bax la mais il faut le faire sous des formes bien précises maintenant je pense qu'il y a eu aussi du zèle de la part des gendarmes parce que président Bassirou Diomaye Faye hélicoptère le sillonné zone bi donc comme jalonnement amul. mais après un moment wàcc na. waaw après waaw comme jalonnement amul. nit ki mënul xam ndax dafa wara arrêté wala dafa wara dem donc bo xolé verdict bi dañ dàq dañ dàq euh, ay ay ay ay ay ay. Euh, dañ euh, amna amna ay ay ay accusations yo xam ko mhm. pour un mois avec ceci, moy le refus d'obtempérer le refus d'obtempérer mënul am fi nga xamné parce que le délit de refus d'obtempérer est très clair dans le code pénal daf euh, les éléments de force de l'ordre intimés l'ordre de t'arrêter dans la circulation et que tu refuses de t'arrêter loolu refus d'obtempérer mais qui taxaw qu'il y a un refus d'obtempérer donc de part et d'autre il excès excès il faut que nous éviter que de plus en plus euh, aussi bien du côté des acteurs politiques que du côté des forces de l'ordre mais je pense que le droit a été dit comme je le dis très souvent juge il connaît le droit et il dit le droit donc euh, il n'est pas lié par les procès-verbaux donc moom dafay faire en son intime conviction ah, motax xam nga bu fekkee ne euh, moy li ñu flagrant délit l'enquête se passe à la barre donc nit ñi dañuy oo seen témoin ñu wax donc juge bi déglu ñep dal di jël décision yam je pense qu'il a été sage euh, de ne de n'avoir pas suivi le, le réquisitoire du procureur de la République bi nga xam dafa bëggoon ñu daan ko ñetti ah. weer ñetti ñu ko donc euh, c'est un acteur politique euh, du acteur politique bu ndaw ci Sénégal mu ñu ngi dugg ci campagne électorale c'est vrai que bañ koy arrêté nek guñ campagne mais comme dafa faut faire dem campagne je pense que c'est une décision sage parce que il faut que de plus en plus ñuy apaiser c'est important ñuy apaiser parce que apaisement bobu moy indi de plus en plus ñuy dal di di waxtaan il faut tamit que nit ñi bàyyi seen jikko yu bon nous biir kër langue politique gi indi jikko servir d'exemple aux jeunes parce que loolu le xale di roy ëllëg ak gannaaw même aussi le président de la République euh, mu amalon ap euh, waxtaan bu yaatu gannaaw buñ ko invité à ci Arabie Saoudite mu am waxtaan bu yaatu bu mu amalon ak kenn si mel ñun di taskatu comment vous appréciez la qualité de cet entretien. moi je pense que euh, le président de la République il est dans la bonne voie. il est dans la bonne voie aussi bien en termes de communication qu'en termes de prise de conscience de son pouvoir de président de la République parce que Khaléla, Khalela, 44 ans là, am euh, occupait un poste de responsabilité Mossoul occupait un poste électif donc ce n'est pas facile euh, au début, c'est assez difficile. Je pense que les gens ont beaucoup critiqué. J'ai dit, il faut faire attention, il faut lui laisser le temps d'apprendre et il va apprendre très vite parce qu'il n'est pas bête. Il est président de la République du Sénégal amna Lula yalla donc euh, il avance il avance tout doucement li koy ñaanal yalla que mu réussir dans sa mission parce que réussite moy réussir réussite sénégalais donc la visite de l'Arabie saoudite est une visite d'une importance capitale parce que xawma ndax nit ñi ñu mais dès le début du nouveau régime on a rompu un contrat majeur avec une grande société saoudienne il ne faut pas que les gens perdent de vue que dafay jour des tensions diplomatiques il ne faut pas que nous disions euh, entreprise et État entreprise quoi c'est le prince Salman lui-même qui avait négocié ce contrat ndax en tout cas si rompre vous rompre xëj na yak, muy yàq moo est régler parce que si l'Arabie Saoudite jogone, mer, parce que c'est les Arabes, fiers. Si nous au lieu de donner un quota de 8000 pèlerins au Sénégal, on leur donne un quota de 100 en 2025, quel monde 100 pèlerins qui au Sénégal. Est-ce que imaginez que Adi Makadjot, nous euh, avons am ñetti junni nous ñu ne ñu euh, am wala parce que def fait ko ay de def nañ ko Afghanistan def nañ ko Iran te ñom ñom ñom ñoo ñoo la ah, c'est les gardiens de des des trois mosquées euh, donc que nga que nga que nga mer wala nga ñàkk mer buñ la né sangay indi sangay indi donc la démarche du président Bassirou Diomaye Faye pour décrisper parce que commencé woon na am décrisp amoon euh, le ministre euh, directeur de cabinet les principales autorités n'ont pas voulu le recevoir donc que le président Bassirou Diomaye Faye fasse la démarche de rencontrer le prince Salman rencontrer euh, profiter pour des rencontres bipartites avec des acteurs économiques. moi je trouve que c'est une démarche diplomatique diplomate mais je trouve que c'est une démarche diplomatique d'une très grande grandeur et ensuite il a communiqué pour montrer euh, lan moo fi indi won, lan mooy ak lan lañuy ça c'est très très important. Alors, pour euh, finir euh, on note aussi beaucoup d'électeurs qui hésitent à participer ndax euh, li nga xamante ñen ñi ñoy njiit wala sen taxaway des na len toy tay si vous aviez un message à adresser à ces électeurs qui hésitent parce que leur voix devrait compter ce serait quoi? Moi, je dis toujours que quand tu dis que je suis un citoyen, un citoyen, c'est des droits et des devoirs. es république, et citoyen nous composé un citoyen s'il n'est pas engagé s'il n'est pas actif on doit lui retirer le qualificatif de citoyen Ce n'est pas parce que tu es république que citoyen nga as droits devoirs parmi les devoirs c'est participer au scrutin le vote n'est pas obligatoire mais bu vous ne yow da nga toog nga ne du voter ëllëg tu ne dois pas avoir la voix au chapitre Nous discuter ci affaires du Sénégal le wax parce que bu vous ne da nga ne man bokkuma ci affaire yi du politique dans tous les cas décision yi pour l'État du Sénégal ce sera pris par des politiques et dans des instances politiques donc boo fa toogul boo fa yónniwul ndaw bu boobaa ne jël ay décisions et ces décisions vont s'appliquer à toi. Donc, moi, je demande aux Sénégalais qui sont en âge de voter, qui sont inscrits et qui détiennent leur carte, il faut que le jour du scrutin, nous dem, nous Parce que c'est facile. Nous avons un contrat de législature, nous avons une histoire politique. Donc, beau défait screening vous ndaw di nga xam nga vous nga un ah fii de am naa fa voté nous dinañ def liggéey bu

Euh, en tout cas ci contrat de législature yi ma le code de l'enfant Sénégal a un sérieux problème avec les enfants euh, man bi ma à la 13e législature c'était mon slogan dafa am texte boo xam suma man ndongo ngi développer ak liñ dans les rues du Sénégal et de Dakar en particulier il faut que nous xoolaat ko bu le code de l'enfant a été écrit depuis très longtemps et stabilisé Nous, on l'a reçu pendant la 13e législature et ils l'ont retiré du circuit donc il faut que loi bobu ñu xol ko naka lañ ko pour que xalé yi am droit Sénégal parce que xalé yi amuñu vraiment droit mënuñu bàyyi des milliers et des milliers d'enfants dans les rues de Dakar ba pare ñuy espérer que suñu dëkk dina am ëllëg gu baax xale boo ko xeebee nga note ko wala nga nakaral ko demain citoyen bu bon ngay jur et bu boba deuk bi du avancer mm-hmm. donc il faut que député yi dem ni assemblée nationale ñu def ko priorité man waxuma affaire yi talibé dama wax les enfants qui sont dans la rue la rue n'est pas une place pour les enfants ñun ñëpp a pas di gis nag suba ba ngoon di gëmm suñ bët ah dañu dem ba mu nekk des xam ne dañ des euh, dédramat dañ ko banaliser loolu mooy wax ji euh, dafa bokk ci décor bi euh, donc vraiment il faut que nous ñu le problème c'est un problème qui concerne les mères, surtout c'est un problème qui concerne la société je ne parle pas des pères parce que quelquefois ils sont un peu plus irresponsables par rapport à ça mais en tout cas il faut que les maires en fassent un combat, il faut que les députés en fassent un combat, il faut que ce soit un combat de la société pour que nous réglions définitivement. Euh, comme nous avons dit que simulé peut-être que nous avons une occasion de code de l'enfant parce que nous sommes interpellés aussi, je pense que ça mérite véritablement émission Bouyato Yato comme euh, vous avez pu le constater euh, nous ñu ngi li nga xamante moom euh, terme li nga xamante moom émission c'était un plaisir encore une fois di bokk ak plateau bi ki nga xamante ni nag kenn dootu ko présenté di Théodore monté. di leen jox rendez-vous ci beneen numéro décryptons l'actu d'ici là portez-vous bien à très bientôt. Merci beaucoup.